jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite sen point com dal leen seen récap du jour ñu digtal leen li gën a fës yi. coronavirus fii ci Sénégal 119 nouveaux cas positifs la am tey ci euh, jeudi bi 102 cas contacts suivis 17 cas communautaires 109 guéris euh, ni ki démb nag le Sénégal daal di enregistré son 55e décès euh, lié à la Covid 19. fële ca Ziguinchor ab enseignant bu ñu testé positif au coronavirus moo daal di rek ab ay tànkam daal di daw loolu nag daal di créer une panique fële ca Mlomp xibaar bu tiis moo am fële ca assemblée nationale. ab député APR moo ñàkk bakkanam eh, ni ki eh, démb lu bees itam am na ci eh, deewu ki nga xamante ne moom mooy Iba Thiam le présumé fournisseur de drogue bilé waa section de recherche teg nañ ko loxo mbokki internet yi nees ki sañu ñu jukkil leen xibaar yi Euh, comme ni leen ko waxee woon rek ca njalbeen bi dañuy tàmbali xibaar ak mbiri coronavirus fii ci Sénégal 119 nouveaux cas positifs la ñu am sur 1164 tests yu ñu euh, amal euh, tey ci jeudi bi 11 juin 2020 102 cas contacts suivis 17 cas communautaires. 109 guéris 20 cas graves lu ci hôpital fan ak principal à ce jour nag ñu am 4759 cas ñu déclaré positif dont cas guéris 55 morts benn cas évacué ak 1709 patients sous traitement ni ki démb nag itam Sénégal enregistré son 55e décès lié à la Covid 19 ab waay la bu toll ci 54 ans moom nag mi ngi génn àdduna ni ki démb ci mercredi bi ministère de la santé et de l' sociale nag di njaale famille waa joojule ba tey nag ci mbiru coronavirus ñu fàtte rek sànc yi nga xamante ne fa la ñu gis ka cas communautaire yooyu te mooy plateau am ñaar maris golf sud Wakhinane ak Hann bu ci nekk am ci benn jam Diamniadio am benn itam Grand Yoff ñaar Parcelles Assainies xaar yàlla ak Fass Mbao bu ci nekk am ci benn Hann Maris itam am benn HLM Nimzatt am benn Kaolack benn Richard Toll ak Touba bu ci nekk itam am si benn dañu desandi itam ba tey ci eh, mbiru coronavirus ab enseignant bu ñu eh, testé positif à la Covid 19 moo daal di rek mujj ab ay eh, tànkam daal di daw loolu nag daal di semé ab panique fële ca Mulomp dans la région de Ziguinchor enseignant euh, boobule nag bokk na ci quinze cas communautaires yi nga xamante ne moom le ministère de la santé de l'action sociale daal di rek annoncé euh, ni ki démb ci mercredi bi moom nag il est activement recherché euh, par le comité régional de gestion des épidémies bu ñu sukkandikoo itam ci xibaar yu ñu mujjee am moom enseignant bi le nag mujj nañ ko localiser fële ca Tambacounda Euh, lu yees itam am na ci communication ministère de la santé ci euh, point du jour yi nga xamante ne moom la ñuy amal ci mbiri coronavirus euh, donc sauf changement de dernière minute point du jour yi nga xamante ne dañ ko doon télévisé dafay rek daal di dakk à partir de ce jeudi ministère de la santé nag li muy def rek mooy envoyé ay communiqué médias yi pour à que ñoom à leur tour ñu jàllale li nga xamante ne nii moom mooy nombre de yi ñu am bés bu yàlla sàkk ki nga xamante ne nag moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr nekk jëwriñ yu ñu dénk wàll wér-gu-yaram ak ñamu àndal dootuñu wax lieu d'origine ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo génn àdduna ci corona coronavirus ndogal lool nag li ko eh, sabab rek bëri na ci ay malades yi nga xamante ne nii seen kër daanaka la ñu génnee àdduna eh, te seeni njaboot duñu nangu benn yoon ñu defal leen protocole bi nga xamante ne nii moom la service d'hygiène ak waa sapeur pompier di soumettre ñi nga xamante ne nii ñoom nañu war a denc. te ñu faatu ci jàngoro yi coronavirus. ab xew-xew bu tiis nag moo am fële ca assemblée nationale ab député bu doon wu ci turu Mariama Mané moom moo wuy ji boroomam ni ki mercredi bi ñu génn démb moom nag ci feebar bu yàgg la ñàkkee bakkanam député APR boobu nag nekkoon Goudomp moom nag mu ngi soqeekoo fële ca Simbadi Balante ci région wu Sédhiou bokkoon ci douzième législature. di ko njaal nag njabootam gi yëpp ak ay jegeñaaleem lu bees nag am na ci génn ko àdduna ki nga xamante ne moom mooy Iba Thiam le présumé fournisseur de drogue waa section de recherche teg nañ ko euh, loxo euh, ginnaaw ba kii di Iba Thiam daal di rek génn àdduna ci ab overdose fële ca Almadi euh, ci ab soirée privée enquête yi nag doon di wéy ba na rek kii di David Dieng alias Pablo DJ nekk présumé fournisseur de drogue maanaam dañoo njort ne moom moo doon fournir drogue bile waa gendarmerie de section de recherche daal di koy rek mujj teg loxo. fële ca euh, cité Biaye samedi 30 mai euh, bi ñu génn euh, moom nag ba ñu koy teg loxo da doon waajal a livrer ab drogue bi nga xamante ne ni moom la ñu defoon ab commande ba ñu demee këram nag daal di fay def ab perquisition la ñu gis rek sept boulettes de cocaïne ak ay laam yi nga xamante ne ni moom lay daggee drogue boobule ak ay sachet plastique ak scotch. ak it ay billets euro franc CFA ak dollar David Dieng moomu le nag ci lu ñuy ñu njoxtaat booy kenn rek dafa bokk ci réseau international de trafic boo xamante ne nii réewum Guinée Bissau Nigéria Bénin ak Brésil ñoom ñoo ko sekk et affaire du docteur sàmm euh, Ndiaye kii di euh, Thiat nekk mouvement wu Y'en a marre moo annoncé woon ni ki euh, démb ci ab point de presse bi ñu amaloon fële parcelle Parcelles Assainies rek ñu ne ki nga xamante ne moom mooy docteur Sam Ndiaye dañu ko bàyyandi ginnaaw ba ñu bàyyi ki nga xamante ne moom mooy Seydina Fall alias Bougazali ginnaaw nag ba ñu vérifier information boobu ci la ñu gis ne rek wérul ndax ki nga xamante ne moom mooy Sam Ndiaye mu ngi toujours en détention fële prison bu. Sébikotane ñu fàttali rek ne kii di Amadou euh, Samba lu bëri ci ay entreprise fii ci Sénégal engagé woon nañ ko rek ngir mu defal ay test yenn ci seen i employé mu daal di rek falsifié en tête institut euh, Pasteur daal di rek itam di doon déclaré systématiquement négatif ay cas suspect yi nga xamante ne nii dañ leen mujjoon def en quarantaine Amadou euh, Samba moomu nag ginnaaw ba ñu ko placé sous mandat de dépôt charge yi nga xamante ne moom lañ ko teg rek euh, mooy association euh, de malfaiteurs exercice illégal euh, de la médecine usurpation de titres escroquerie portant sur les deniers publics mise en danger de la vie d'autrui ak faux et usage de faux dans un document administratif waaye itam faux et usage de faux en écriture privée complicité de contrefaçon de sceau d'une autorité quelconque et usage des sceaux contrefaits mbokki internet yi xibaar yi bëccëg bi tey euh, noonu la euh, toll cant ngërëm ñeen na leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun euh, di leen jox dig daje beneen yoon kenn dalu jàmm. munoo jàpp kii kaas pour ñu ibbi jàkka yi nga ibbi jàkka yi ba pare tëj ko moom kaso c'est incohérent Assane Diouf on peut ne pas d'accord ak façon bi mu defee waaye daf ne bu ñu ibbi école yi finalement mujj woo ibbi école yi kon pour la nga jàpp ko cest à yow la la ñor mooy lañ la waxal yow. mais la la lay continue wu la ñuy wax ñun loolu moo amul solo Sénégalais yi ñu ne dér waaye nga bàyyi Bougazelli sa bandit de grand chemin muy taxawal ci dëkk bi ak ay faux billets ñu ne dér na waay sa faux médecin nga libéré ko le faux médecin a été libéré. donc kon ay gaaf lañ nekk di def ci période bii ñu nekk nii jàpp ay ñuy nit ñuy xeex pour seen réew bàyyi ña nga xamante ne ñoom ñooy sàcc koom-koomu réew mi ci biti ñu génn loolu ñaawlu nañ ko du yoon nañu libéré Abdou Karim. nañu libéré Assane parce que ñooñu ay sénégalais la ñu dem ñibbi seen kër te jàpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy wuy yi ñoom ñooy band yi gis nañu leen xam nañu leen. vous avez dit que Macky Sall a juste rallongé l'état d'urgence pour faire des choses illégales est-ce que vous pouvez oui l'état d'urgence dans une manière d'une manière ou d'une autre arrange Macky Sall parce que ça lui permet de de de de de de de de signer des contrats de signer des décrets de faire ce qu'il veut en réalité. il, a, il, il est sous la posture d'un dictateur, Donc il fait ce qu'il veut, il en profite pour, donner des terres à, à, X ou à Z, enrichir sa belle famille, enrichir les amis, profiter de, de, ce climat pour montrer sa force. Parce que sortir la police, finalement, on va en arriver à un état policier parce que c'est ça qui l'intéresse. C'est, voilà, les, les Sénégalais en ont marre, on étouffe on parce que n'empêche les cas ont à des milliers. et que l'État du Sénégal n'est pas proche des Sénégalais. On ne sent pas notre État. Ce qu'on sent, c'est un monsieur qui est là-bas, qui décide ce qu'il veut, qui, qui fait ce qu'il veut à tout bout de champ. Et euh, nullement les intérêts des Sénégalais n'ont été vus dans cette, dans cette gestion de cette Covid. Rien du tout. Alors. Et, et euh, de votre, de, à votre niveau, qu'est-ce que vous comptez faire Oui, ce que nous comptons faire, c'est nous sommes en train de nous mobiliser avec les autres forces vives de la nation. Nous sommes dans le cadre de Arlini Bok et de Nyolank. Bientôt, nous allons donner le, le plan d'action. Mais on est en train de préparer nos actions parce que nous pensons que si des Sénégalais sont capables de manifester à Touba, à Djurbel, à Ziguinchor, à Cap Skirring, partout au Sénégal, ici dans la banlieue, pour que le président recule, sans demander d'autorisation, nous, en tant que mouvement et organisation responsable, nous demanderons des, des autorisations en bonne et due forme et nous respecterons les distances, les, la distanciation physique. Nous sommes responsables si les mosquées sont ouvertes, si, si, si, si les églises sont ouvertes,